asalaamaaleykum waa Sénégal man la Diané Diouf man nag célibataire la ku maa ngi tudd Fatou Sow célibataire laa maa ngi dëkk fii ci Grand Pikine. waaw jërë ngeen jëf comme na ma waxoon rek laay waxaat man naa yaay xale fii xale dañ maa jox palaas teg ma palaas ma di leen ñaanal yàlla nag yéen ñëpp seen télé bi jëm ca kaw ca kanam te dina ko doon. daal maa ngi tudd Khady maa ngi woon fii si émission Bokk Wërsëg Grand Pikine. bëggee bëggee télé bi bëggee ñu leen bëggee de ñaan leen rek si kaw si kanam man la Daba Ngom maa ñëwoon fii ci émission bokk wasa li may sëy ku ñeme na taxaw asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi di leen si beneen numéro fii ci Pikine ànd si ak ay daanaan ñu fas yéene waxtaan waat sëy ndax nee naa leen ne sëy géej la saa yi bu ñu jàppee puso bi wax si lii des moo ëpp fuuf. Euh, euh, Diané euh, mbirum sëy mi wax nañ si affaire liggéeyante liggéeyante ñëw na si ñëwaat si ndax am nga ay cumukaay benn maaman boo xamante ne moo la yor. bu baax ndax ku ci nekk booy dem rek. na nga pare rek toog xaar te xam ne guerre nga jëm da ngay xare ji. say say guerre la. waaw say guerre la doo xam looy fekk ji mais yow miy dem utal say arme rek te xam ne lu nga indi rek nga wecci waate. Fatou say guerre la. say guerre la moom man moom ñaareel laa bëgg a nekk bëgguma nekk aaw na soo nekkee aaw lu mu yàgg yàgg di nga amul. balaa jaay kay nga nekk ñaareel moo gën. ñaareel dañ koy utal beneen muy ñett ba ñeent la. <laughs> non su ñëwee fekk ma fi rek man moom bëgguma ñëw nekk ñaareel ba pare de xatal aawa ba fa nekk ndax xam naa ne daa toog muñ comprendre nga. est-ce que yow am nga ku lay jàppale si wàllu sëriñax yooyu. non man maay sama cumukaayu bopp. maay sama nooy préparé góor yow pour ki nga xamante ne nii moom ngay bëgganteel noo ko fas yéene waajale <laughs> mbaa rek am popoté boo xamante ne jabaru popoté kii fàtte la nga am Fatou mi dañu dañu ko nangu ay célibataires yu jigéen ñoo fekk si biti dàq ko si sëyam léegi yow fan nga fas yéene téye sa sa jëkkër nan explique mooy na daal du ma fi fan nga war a téye sa na benn femme fi mu ne nii waaw ki ngay bëgganteel yor na yor na benn te loolu lañ nekk la donc donc donc bu fekkente ne nii li nga xamante ne nii mooy mbirum euh, sëy. Euh, euh, liggéeyante si wàllu sëy lañuy wax loolu kenn weddeetu ko am na yow bi nga xamante ne nii jaane duggaguloo est yaa ngi am marabo boo xamante ne nii moo lay téyel say cumukaay. man mii rek maay sama cumukaay bopp. ndax nit boo ñëwee li ngay def rek doo wut sëriñ ay ñeleñ lépp iya, laa daan defal daan nga defal cuur lu mu bëgg rek defal nga njor ni cuuraay neemal ak lépp est ce que defal nga njor ni lépp laay defal njor ni nan lañ koy bëgg lu ne la defal njor ni ah jonde luñ koy defal nan lañ koy may tekk lool xam na ñu defal jonde nga mo ak ñu defal jonde wax ko ñi xamagul ah waa <laughs> ma ma rek maa tax ñu naan yónni. léegi yow am nga envie delluwaat si moom. Mm-hmm. am na. envie delluwaat si moom. ah bu ko yàlla dogalee rek. Ah, kon yaa ngi koy dog ba léegi. déggoo ma bu ko yàlla dogalee rek waaw ah. naa lépp ko bàyyi si loxo yàlla. <laughs> yow mën na nekkaat de. kon waa ji da nga ko teg jëlee. déggoo ma ma ni mën na nekkaat laa la wax. Ah, ok d'accord waaw eh, léegi nag dañu bëgg. sama dama jeeg buy daw. dama bëgg nga ñëw si loo xamante ne bu démb doonoon tey. Mm-hmm. nan fan ngay jaaraat ba li la dal ah, parce que nit ngay football ba pare nga dem ba si kër visionné waat sa match. Mhm. nga xam ne am nga ay erreur yoo def pour prochaine fois mu bañ la dal. Mhm. wala ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan lan nan nga jàpp ne mooy sa erreur. man ñaanu ma yàlla duggata ci mu dal ma mhm. ñaan naa yàlla maa ma tey borom kër toog kii. sëy ba lu yàlla dogal rek. sa erreur lan la woon sa erreur yow lan nga jàpp ne erreur la woon si yow. mu ne. lan nga jàpp ne erreur la si yow. ma daal damay jàpp ne daal ndogalu yàlla la. non am na foo ni juum nga. daan na la wax day ya? dëgër bopp mu lay tere nga naan moo man. déedéet man musuma tere ma ma ma dëgër bopp. tey loolu looy rëccu. musul am su dem ba doonoon tey lan ngay rëccu. musul am musul wax sama tontu. mais lan nga rëccu. musul nekk parce que sëy mënul neexee noonu waa ji rek. dem bagaasam. ah lu yàlla ya dogal la. daawuloo dangal. mu ne mënti nga baax ma maay sa yaay ma dugg foofu may ma. daaw ma danga mais naa sol sama yu baax de. waaw moom lu ki mu jëlee ji indi ko remplacé la ko lan la lan nga. jàpp man ñaareel laa woon. waaw. loolu la yàlla dogal daal la. waaw léegi nag lan moo tax nag mu dem. ah ah déggoo ma. yàlla ko indi yàlla ko yóbbu rek. Eh, xam nga yàlla yàlla yàlla yàlla bay sa tool gis nga yàlla. ba mu la joxee sëy bi jox na la pour nga toppatoo sa waay est-ce que yow toppatoo yi ni nga ko doon toppatoowee amul lu des. te dama nga top toppatoo moom ba yow jàpp nga ne des na jàpp nga ne mat na waaw nga ne yow soxlaay toppatoo nga lu koy xelal dafa am lu wax pare ndax moom sëyam dafa am lu ci fekkee moom ak dëkkam ñu bëggantaloo muy ñaari gone nak sëyu gone nak mag ñi ñoo ciy jàpp kooku xaj ku góor ki ay waajuram dañoo sori mëtti ay waajuram ñu ci wetam ay lañu doomu la ay nañu di dem yaa ngi dégg ñu doon ñaari xale nag ku ne gis sa bopp fëgg boobu moom maanaam ci sama gis-gis man mi fekkee moo ko génne ci sëyam te bu ko yàlla dogalaate mun naa mu delluwaat ci biir sëy loolu la tubaab de caprice ah. maa ngi koy xaar maa ngi koy xaar dina ñëw wiiri wiiri jaari ngaari wiiri wiiri jaari ngaari man daal dama jeeg buy daw moom. Ah. man moom macha allah. waaw ah. maa yàlla baax ma jeeg buy daw. non dama bëgg. xam nga cat dafa gaaw mais mi ngi ci yoon bi. Ah, amati hmm? nga waxal ma ak moom wala man ma wax ak moom. Hmm. Hmm. day ñëwaat waxal ma ak moom. wala man ma wax ak moom ne ko mu ñëw mati. parce que namm nga ko te bëgg nga ko. nee ko. nee na ko. <laughs> nga euh, flexible tuuti nga xool ah. Ah, nga ko euh, nga wax ko wala nga junj ko. nga ne ko nag. day ñëw sama séeri day ñëw day ñëwaat day ko dindi <laughs> sëñ Bamba day ñëw <laughs> ma bañ nga ko ci benn taxaw. yaram bi tàng yaram bi tàng bay ñëw bañ nga ko ci mbedd mi lay taxaw di ma séentu. waaw damay romb sax ñu ne ma sa jëkkër yaa ngi taxaw fii mi ngi ma ne fan ni ma fii mi ngi taxaw fii naan matt jaar fii di jaar fii mais day ñëw. damay damay xam day ñëw. sëñ Bamba day ñëw. ñaareel nga woon. ñaareel la woon waaw. da nga see bëgg nekkaat. man kay. màngoor rek la xam naa day ñëw daal moom daal man daal naa bàyyi toog parce que cat dafa gaaw. mais non man man cat dafa gaaw. non non dafa am benn point boo nga xamante ne bëgg naa nga jàpp si. Eh, eh, eh, te dama bañ ñu dégg ko di si jóg. waaw cat dafa gaaw waaw xool bàyyi rek ñu def ko noonu. <laughs> day bañ ñu day bañ ñu. day bañ ñu jóg di si jóg léegi ba léegi rek affaire liggéeyante bi. si wàllu sëy mm-hmm. dafay mm-hmm. feeñaat donc mëti am na lu muy ragal. dëgg la euh, ndijaay wala tonton ah Mati mu ngi lay xaar. suñu tonton lay yaram daw na donc euh, toujours rek li ñuy wax. Euh, tey émotion feeñ fii euh, beneen mbir génnaat na sama yaram taw na Mati dafa bëgg borom këram benn tey yéen ay xaritam wóolu leen ma waaj waaj. tey rek. Thomas ñëwal ah. laa wax ah. ah neex. waaw lii am na solo tey lii sëñ Ousmane moo boobu lii ñàkk ci àddina mm-hmm. wante eh, góor ñi rek laa bëgg a wax tuuti mm-hmm. góor daa war a doon nit ku baax mm-hmm. loolu wareef la ci góor baax ndax wolof day faral di wax ne góor bu baax day mel ni sababu bu basi foo ko sëpp mu ruus fa te góor dafa war a bëgg ak njabootam di sàkku seen mbégte loolu yitte. macha allah Mbaye. vraiment waa lii bu la si waat macha allah ku ak njabootam. ndeysaan ndeysaan bu la déggee euh, bu la déggee dina ñëw. ndaxte tey bëggoon nañu si émission à travers émission bokk wërsëg bi. Hmm. Euh, mu dellu si waat. waaye nag euh, mëti duma ko bàyyi. parce que dafa am loo xamante ne bëgg naa. Euh, mu waxal ma ko euh, sama ndijaay wala sama tonton mu am lu mu regretté ah parce que am na loo xamante ne ni euh, nangu na ne ay erreur yu mu def. Mm-hmm. dama bëgg nga wax ma erreur yooyu nga waxal ma ak moom. Mm-hmm. mel noonu rek erreur la. waaw point nga ne. Mm-hmm. nga. fàttaliku ma ko na ko. woowal ma ko si point boobu nga jéggalu ko si wàll boobu noonu. day ñëw sax. daal yàlla dogal rek mais borom baax la nag de mais lu yàlla dogal rek nag daal yàlla dogal rek daal dañ ko teg si mbiru yàlla rek mais moom borom baax la dëgg yàlla xëy na nag yàlla dogal rek yàllaay taq sëy mooy mooy wedd lépp daal si mbiru yàlla daal ko teg si mbiru yàlla rek wax dëgg yàlla parce que borom la wax borom la suñu am problème lu rek am problème wax yalla yalla dogal mom jàmm ci dara de dañ koy nangul bu yalla la te diko war rek. am xana neex. day ñëw sax. li dama tojal sa kaay. yaram yaram daw na. ah waaw. da wara ñew nak mom ñong koy xaar. te jaari nañu wu ñoo kuy ñun rek ak suñuy def baax. ñu nuróowu ñoo koy daal. dañuy def ba mu baax. di attaqué. Euh, euh, dama ñetti baar ngoon rek. Euh, bëgg ñu taxaw foofu tuuti. si. njool yomb lekk ndax Mati am na modestie bu toll nii. alors wax qualité jëkkëram ay mbaax mbaaxu jëkkëram yow tamit naka noonu génne la si sëy bi yow tamit yaa ngi woowaat sa waay wala yow préféré seeti feneen. ba yàlla moo ko dogal rek su yàlla dogalaatee suñu diggante tamit. ma xam ne loolu la yàlla dogal su sama wërsëg jeexee ci loxoom tamit ma xam ne loolu la yàlla dogal waaye nag dama lay xamal ne la góor gu baax la baax na lool am na yërmande lool mën naa too jigéen lool waaw. jërëjëf. Euh, ni école amee cp mhm. examen daal di réussir am ay baccalauréat wax euh, mhm. baccalauréat wax yooyu. Mhm. noonu la war a defaree xale yi préparer leen si sëy. foofu dafa fekk nag tamit ba tey kuy sëy na ànd kuy sëy te sëyu ñaari xale li ma la wax rek fugg bi day gaaw bu dee ku góor ki ku jigéen ki te xale yu góor yi tamit di yërëm seen jabar yi tamit ndax jigéen dafa gaaw a gis boppam tey senegal fukki xale yu jigéen yoo dàq ñu dem juróom-benn yëpp dañoo rafet ku ci ñuulul dangaa xees te ñëpp a rafet du dëgg kon ku ci am sa jabar na nga ko téye jàppale ko ñun ndey yi tamit ñu jàppale suñu doomu jigéen yi waaw ñun ndey yi ñu jàpp suñu doomu jigéen yi bu baax bu baax a baax ci sëy ndax goro yi ñoom doy nañu waar nii baax nañu ñii demee nañu neneen na am na góor xam dañuy jël seen doomu jëkkër seen doomu doom bu góor jabaram daf ko wujj loolu am na ndax dañuy du dañuy xëcc seen doom ba mu ëpp te fekk du noonu ñoom seen doom yi dañ leen war a jàppale seen doom yu góor yi comme ñun ñii dañoo war a jàppale suñu doom yu góor yi seen i jabar yaay booy maa ngi leen dégg sànq nga ne euh, euh, ki nga romb fële muy tànn ceeb. waaw 4 4 bi taxaw. waaw loo si wax nga ne. waaw dama ne kër goo romb jeeg ba ci biir toog di tànn ceeb 4-4 bi gaar kooku xaw naa dee ndaw soo sa toog di tànn ceeb ba xaw naa dee cib sëy sunu maam yi sunu génération ak ñi ma xaw a féete kaw tuuti dañoo sonnoon ci sëy mais xale yi tey ñoom sëy daal dañ koo bëgg a def sa kii rek ndoket sol summi sol summi waaye loolu waajur yi ñoo leen war a jàppale. yéen tamit yaay booy joxoñ nañ leen baaram. Euh, nee nañu euh, fi ngeen jaaroon nag suñuy baay yi. waaw foofu ngeen bañ. seen doom yu góor yi jaar fa ak seen ay soxna parce que yéen xam ngeen secret bi. da ngeen daan dóor suñu bàyyi. am na ñu koy def képp ku bëgg a jur doom ju baax buy dem ñu naa ma nga nele bu leen wax ba mu ñëw ñëpp noppi kooku moom ndeyam dafa sonn ci kër baayam bay bëgg a dee. jigéen ñi nag dañoo bari te bokkul yàlla moo def loolu dañoo bari sofaan daal li ci biir yaa ngi dégg waaye ñun dañoo sëy ba mu jeex tubaar fa kàlla macha allah li may wax dama moo ci tiitaru ma ci. samay doom bu ñu génne xam nañu leen teg nañ leen seen place te sama morom yi ma bokkaloon génération tubaab fakàll Aline Guissé mi ngeen di dégg muy woy yaayam dafa sonn ci sëy ba xëy génn àdduna maag moom ñoo doon ànd sama xatu benn bakkan la Aline Guissé yaa ngi dégg yaayam dafa sëy sëy bu rafet bis bu muy gaañu toggal na jëkkëram reer ñu reer ba suur yàlla def la gën moom yaay Aline Guissé moo tax Aline Guissé bu taxawee sax xool dina am

daba nee kan mooy fëgg xam naa ne du doon man euh, te sama caméraman bi ñemetul fëgg ndax mu ngi si euh, ñeent tëj na euh, mbay seen yow it ñëwuñu fëgg aaroon na yow duma la bàyyi mu ngay fëgg xanaa ma yabal sama waaj a nekk sa japon sa yamanashi biyaa gi fëggal daba wool ma biyaa gi mu ñëw fëgg kon biyaa ñëwal fëgg maa ngi xaar kuy fëgg kuy takk yóbbu kuy takk may ceebal ndayam man mii rek ci xale man damaa namu daray góor man ku ma fase li ma baara sew ji namu ma dara voilà donc euh, d'abord euh, wane na boppam nee ku ko fase euh, di nga ko baara sew ndax moom kat namul dara Mbaye li nga dégg tey sax na yi est-ce que nekkul ne dafa jotaat ñu am lu ñu leen jàppale si wàllu sëy waaw sëy na sëy tamit ndaw ñi faaw waajur yi jàppale leen bu baax seen biir néegu seen di leen xelal di leen wax li nga xamanteni ni noonu la ñu yore jëkkër ndax gis nga góor ak xale bu ndaw ñoo yem ki leen di nax di leen neexal la ñu xam te gis nga jamono ji ñuy dund am ci doom ju baax moo gën a yóbbu téeméeri junni yoon ca bu njëkk nan daan sëy mu mel ni da nga ne xale yi sëyatuñu parce que dafa am loo xamante ne ni dañu ko fàtte ay raxas tànk waaw dañu xam nga olof da ne kër baay gédd la kenn ku ne la sa ndey rat yaa koy naan te sëy xare la boo ci juree doom jam nañu la kër baay gédd la euh, bu ñu kenn ku ne la sa ndey rat moom ngay naan yaa koy naan euh, Fatou jëlal micro bi euh, nga wax ma yow soo amee borom kër nan nga ko fëskee na toppatoo may kondox mu naan. rootal kondox mu sang. taajal ko reer bi dafa mel ni def Dubaay ay Maroc nga gën a mën ka yor jëkkër. loolu si surtout nag. tamit ba ay kër goro yooyu njëkke yooyu nah. apa appartement daal laa bëgg say daal même sama bopp tamit. yow yow da nga bëgg yow rek ak sa kër. waaw ak sa borom kër. dong si seen kër waxal ci kaw ma dégg. <laughs> loolu laa bëgg loolu la ñëpp bëgg sa instant bi nii. nouvelle génération bi nii ñëpp loolu la ñu see de na xamal soo amee dëkk tamit de nekk ak yaayam ba seen waa duñ la may jaam nga am si benn doom ñu fubal la tamit nekk di doxaana yooyu noonu. da nga am la metti rek balaa caa soo nekkee sa appartement gérer sa dëkk yéen ñaar kese kenn du la fatt su ngay amee problème di ngeen ko mën a lijjanti yéen ñaar. loolu Fatou yow yaa ko wax mais Diané waxul loolu. Diané sa loolu la wax. ah. <laughs> jaane. <laughs> Ah, ku ci nekk yaa xam na tojee sa bopp jënax rek ñun ñu amee jàmm suñu jëkkër rek loolu lañ bëgg. si kër famille. kër famille bu ñu fa mënee am jàmm tamit moo ñu gën a. ndax ñun ñu ngi nekkee Fatou bëgg. yow nag ndax moom jàmm rek la bëgg. sa doomu ndey jàmm na la. ah man moom laa àndal de. Euh. ndax nit fa nga amee jàmm rek. waaw ah, yàlla gën a xam nit ku nekk rek yaay xool na ngay tojee sa bopp jinax gis nga Fatou bu nekkee kër goroom goroom yi may ko jàmm may ko salaam dina fa mën a toog ndax ñun jàmm rek lañ bëgg. xadi loo wax. moom la ñu wax rek jàmm rek moo lii de man ne ku ma may jàmm rek laa bëgg man waaw sëy daal mooy loolu. danga si dugg ba pare. ah ñu lay mi faafoore. ñu lay. ñu ñu ñu koy lan. mi faafoore. rek comme di la soo defee dara ñu la baaxul. di la def ay yëf tamit ay affaire am na ci kër yoo xamante wala ñu lay sosal tamit loo xamante ne defoo ko. bari na fi de. yéen sama yaay ndeyloo moo leen di tontu yaay xale yi boo leen dégg foog nga wutal leen université ah. xale. xale yi yaay booy sama yaram taw na. yaay ciosan ciosan joy la dëgg la dañuy xale rek lii ñu wax dama defe ne du lu dëgg ci ñoom ndax ku ñu bëgg ñom ba bëgg ko fu mu leen rig rek dinañ fa digg waaw loolu waaw li ko na la rek waaw dañuy xale rek appartement day loo xew amul woon lan moy appartement appartement dañuy wétti de ñepp ci biir kër yu mag lañuy la ñuy dellu ni jaay am baay am maam am rak rakku am ñuy jubbantu gone yi ba ñu bàyyee fekk xale ci mbedd muy xeex nga jubbant yaayam boo ko jubbante yaayam ñëw ñëw tax nga dóor sama doom boobu la àdduna bi yàqu daal. Euh, Mati dama bëggoon euh, nga fàttali ma bi nga nekkee sa néegu sëy di sëy est si këru famille nga sëyoon walla si appartement nga newoon boo si delluwaatee fan ngay dem si appartement walla si kër famille. mais su ma sëy woon tamit damay damay sëy de sëy woon kër famille tamit damay sëy mais lu yow nga nekk sa appartement yow kese mu metti ba génne am est boo demoon si kër famille di nga ko man a gérer. ah mais ma takkee daal mais man mosuma sëy wax dëgg mosuma sëy. yaa ngi woon toujours si sa kër. waaw suñu wetu kër noonu waaw. ok mais mosuma sëy. ok euh, euh, Daba euh, yow nag fan nga nekkoon sa appartement nga newoon wala si sa kër nga newoon. waaw sama kër laa nekkoon sama kër famille jëkkër fa laa nekkoon. fekk fa samay goro fekk fa samay njëkke waaw mooy sëy nag sëy bu rafet ndax nit boo ko bëggee di nga bëgg mbokkam di nga bëgg ay raqam di nga bëgg ay magam di nga bëgg ay tàntaam li ma lay wax ak nii xale yi léegi bëgguñu sëy ndax soo bëggee sëy bëgg ko def rek sëyu jakartaa sa taat sa taatu jëkkër loolu du neex da nga siy boole mbokk say jëkkër ak sa mbokki jëkkër ak say goro ak say njëkke loolu mooy sëy ndax ku bëgg ganaar dangay bëgg ay cuucam Fatou ñu ngi lay tendance. tey maa ngi leen <laughs> gis nga dama li mu wax laa koy tontu gis nga ñun boo ñu xoolee rek xam nañ ni ñoom dañuy sëy ñun ñaan ñu yàlla sëyee ko ndax ñun ay xale yu ndaw lañ buñ bëggee suñu jëkkër rek war nañoo bëgg ñëpp mais fu ñu amee jàmm rek foofu la ñuy nekk. kon moom Fatou lay tendance. Fatou lay tendance moo tax maa koy tontu man mii maa koy tontu ndax gis nga sama doomu ndey. jàmm rek lay woon. gis nga ni ko gisee ni ñu timidee noonu la mën a toogee gérer sëyam nag. Fatou dafa mel ni moo fas yéene tontu boppam dëgg neexul tamit. Fatou xam nga tey moo nit ki am na loo xamante ne soo ko gisee si sëy soo si dugg da ngay ragal. Mm-hmm. sama mag daa dund loolu noonu daa nekkul si kër gi sëy ak ay borom yëpp xam ma laaj jëkkër ji dem tukki. warga, ko njëkkee moo tax sëyam moom xam Hama ma xam na fekk loolu orang ko déggee ne dem di sëy sa kër borom loolu tax gis nga ñun bu ñu xoolee ci daba rek day tax ñu gën a ragal ndax moom mii kër jëkkëram lan moo ko fa jëlee daba nettali ñu lan moo la di sama xarit la lool moom li mu dund sama xarit sax da koo dund instant yi gorom moo ko fat ci biir kër ba dëgg ji bëgg am waaw ah, goro yi si jëmu ñooy xatal ñooy tax dañuy maye seen dañuy seen doom day takk jabar ba pare ñuy fiire seen jabar nañ see wax dañuy fiire seen doomu góor te du yoon seen jabar du yoon nañ bàyyi nag xale yi ma gën a goro yi sikk la njëkk yi dañoo sikk fii ñëpp a bëgg a sëy. <laughs> njëkk de yéen xale yi tey yéen a sikk ndax boo la ñëwee toog bëgg a sëy rek xale yi tey ñoo doy waar. da ngeen di ñëw di indi di imposer di wax yu yooyu yaa ma gën a xam da ngeen a war a toog ñu aaw yi dañoo aaw dañuy toog di sëy rek te yaa ngeen bëgg a ñëw rek biri sa seen ménage loolu du mën a baax yéen ay ay xale appartement ngeen appartement du sëy waajur yi si la ñu bokk dañoo leen di dimbali yéen ay xale ngeen xam ne gis nañu suñu biir néegu sëy ñun ñooy arrangé suñu bopp ndax ñun rek bu ñu duggee mën nañu biir mat biti ah. ñun dañuy toog seere ko ba mu neex dëgg neexul nag xool bi rek ñu doon ay xale appartement waaye ay sëykat lañ kat de ndax suñu yaayee dañoo toog muñ ndax lañ dañoo sëy waaw dëgg neexul ñun boo ñu xoolee xam ne sëy rek la def xale appartement lañ de waaye tamit ako ñëw mën a gérer sëy ako ñëw bëgg suñuy goro mais bu ñu mayee jàmm rek kër gi neex nga ne ku leen xool xam ne sëy rek ngeen di def. moom ba dugg boor bi sax. te ay al alxayri jubagul. ah waaw loolu neex na waa baax na rek sëy rek la ñuy def. li may wax a ngi ñëw de di sëy rek. ñi xale. bàyyi leen rek. sëy metti na de. bàyyi loolu waay. bàyyi bàyyi bàyyi neexul de. bàyyi alxayri jub boobu ngeen. dama si lan def ko def ko moo jafe. kenn duñu xool waa am na si goro yoo xam ne dañu mel ni ñu nox seen doom xam na nan la ñuy def yenn saa yi demee dañ lay bàyyi sax ba jëkkër ñu lay déranger di la laaj ay affaire xoolal li ma lay wax leer laa wax nii dëgg la xoolal benn femme kooku sama sama sama copine mag la dafa amoon jëkkër muy say jëkkër ji léegi jëkkër ji wàcc ay ay goro bi di ko woo naan ko diw kan nga jox ma kuddu curuwaa bi comme doom boyalaloo ma maa doon boyalal suma bopp jox ma kuddu curuwaa bi ma suul xale yi ah xale bu jigéen bi génnee sumee ko ba set wecc mais comme ni ko ndeyam juree woon romb mee beeg sànq di tëgal taatam na ko xaaral ma ñëw jox la ko document mu ne ko waay waay doom bàyyi mën naa koo jël doy na. léegi boo gis nag am na exception am na ñoo xam ne nag moom dañu baax. ku mën a gérer seen goro mooy di gën a seen doom. laay ku mën a gérer sa yaay di gën a seen doom. Ah, euh, euh, Mati mu ne ku mën a gérer sa yaay. di nga mën a gérer sa goro. kon àndoo si appartement yi. mu ne àndoo si say. non man. yàllaa dogal sëyiwuma rek mais man su ma muuroon tamit ma war a sëy damay sëy. mais ñii dañu ne si appartement yi dañu bëgg a dem. ah ma ne d' accord ci appartement bi. dëgg yàlla demee góor ñi dinañ la dóor. d' accord ci appartement parce que am naa la wu góor. te bëgguma mu takk jamono wutal ma appartement ba ma. voilà góor a Tatiana comme ni la suñu yaay da nga bëgg a nekk ak sa goro mu lay defal lu baax nga koy defal lu baax mu mel ni suñu yaay dëggal na wax jooju nga xamante ne ni moom nga wax yaay booy dafa mel ni sa yaram daw na waaw sama yaram daw daf may ñaan damay ñaan am goro bu mel ni mëtt mi waaw ndax moom dafa fonk mag moom xam mag jox la place. am yërmande yaay da da ngeen a kii de. dafa am ay yaay yoo xam ne rek. am na yaay yoo xam mel na ne noonu ngeen wax am na. lan la ngeen ci yàlla sama ñoom yaay yi dañu kii de waaye nag. sama yaay Wally Diouf nag kenn moom yaay boobu. waaw sama yaay ndaanaan nga. ku ñu yóbbu ci kër ñu toog sëy gérer ba mu ne dañoo jëlee fekk suñu yaay. di sëy gérer ba mu ne ku ci mel ni maa anta daa toog ba muy metti fa la ko dërëm fekk ba tey ba cent franc fekk ko fa ba ay million fekk waaw waaw ndax daa toog muñ ko fa mais jàmm joo jàmm nag buñ ko mënee am ci suñu kër famille ñu toog fa gérer am tam ñu génn ut suñu appartement ndax ñun dara ñoom ñu yóbbu suñu jëkkër xam nga ñoom dañuy waxee rek ni nga xam ne man naa nee noonu te réew mu ne da nga am say baax ak say cosaan ak sa mbatit ndaw nag day yàqu bar lu mu duuf duuf du teemu retax xam nga soo de jigéen di ndaw di waajal dugg ci néegu sëy ne yow appartement la gënal danga nga xamut li ci lëgg-lëgg sëy taasukat ba daf ne sëy ci sa juddoo neex sëy ci sa judd kon sëy ci sa judd bu njëkk da nga daan wàcc ci kër mu natt say loxo raame la nga dugg ci sa biir néeg toog sama xam ne li may wax dëgg wér nga ci sa biir néegu sëy nekkal say goro ndax lépp àddina mu ngi gonge ko ci ab yar hmm. waaye bu yaratee lépp rate waaye boo nekkee ci appartement nekk fa yow képp yàgg sa jëkkër ngir am seen doom nga xëy liggéey mu xëy liggéey doom hmm. te ñu def yonent bi daf ne nooflaay amul ci àddina te kenn jëfandikoo ci nit ñi àddina ah. leen doo ngay tax sa dund mën a yëwén neex mooy nga mën a muñ ndax lépp àddina dafa jafe yàlla ñu dund ci ay coono ak i naqar ak i métti foo mën a day am coono waaye nag muñ ah. moo koy moo koy jàppandal. ndax mun gétt la. te ngoroy buum nga ca yeewee. te bu ca yàgg yàlla ci lay indil ab xont. macha allah ah, ah, euh, waaye nag ñu ngi xëccoo micro bi. ñun bañu ñoo de bañu dañoo ne comme ça bu ñu sëy jee gorgoro goro bi sonal yooyu noonu ah xam nga fi may waxee. déedéet. ah. ah moom neexul. waaw muñ rek sëy neexul. sama yaay dañ daan daj bañ lay maye jàmm na dëkk bi fi mu toll bi fi na métti boo xamante def lu ne mënoo yaay daan bu <laughs> la la amul lu la daan coono mu nekkee fi mu toll nii ah. imagine tey sa jëkkër liggéey ji ba wàcc ay sa jëkkër liggéey ji ba wàcc ñëw coono bëgg koo rey bu wàccee fekk fi coono boo xamante ne sa goro ñëw sonal la wala say njëkke ñëw sonal la coono boobu noonu bi mu sonn yow doo am temps boo xamante ne di ko mën a accueillir jox ko mu lekk jox ko mu naan boo ko dee jox mu lekk jox ko mu naan sax doo ko joxee xel mu dal ndax sa gorom lay fitnaal fii sa njëkke di la fitnaal fii la moindre des choses na nga jël say proposition boobu nga jël say gàdd te ba ngay amee temps baax dem sa appartement nekk ci sa jëkkër nekk moom ci jàmm du tere nag suñu yaay ñu tegee leen fële di leen xotti jasne bi riis di leen def ay boobu ñu naan baax ndax ñun ku bëgg sa yaay bëgg sa gor mm. dëgg neexul tamit mais fu ñu amee jàmm rek tamit moo ñu gën ku bëgg sa jëkka sax di nga bëgg sax ci rek ci jël sa jëkka sax di ko bëgg waaw loolu moo ah, yoon yoon loolu moo yoon ne waaye jabar yi tamit ya ñoom ñooy tax nag ñooy yàq seen say doom kay da ndax goro yi ngeen ñëwoon a fàtte woon goro yi jëkkër la ngeen indi teg kaay xam bu ñu duggoo ci ngeen ko ci ngeen ci doogu dugg waaw loolu loolu dëgg si débat goro mais yéen débat jëkkër ngeen ne woon fu karaw yaay daal sunu si muy añ di reer di yëpp koy defaral su ko nekk mun na seen papa ngi nii du dox waaw moom ak suñu papa nekk si kër gi sama papa du joxe dépense añ yaay koy def fay courant lépp du parité lañu wax. lépp a sëy ah, am na beneen point boo laal. Euh, ma gis ma dégg Mati sànq aussi mu laal point bu am solo xam nga gaz bi ñëw na ay mat la woon. courant bi ñëw la. ay ay kii la woon ay lampe tempête la woon ak ay pétrole. ay lampe pétrole. Euh, ñëw na. ay teen la woon waaye léegi affaire bi dafa dund dafa gën a baax. problème yi gën a bari. suñu yaay yi ñu daan dund. dunduñu ko. boobu robinet amul na kër amul na mbedd lañ daan rootee. ban heure lañ daan jóg quatre heures du matin daan jóg di rang. ci robinet di rang ay xooxu mango di rang ay xeer. yow saa yi rott na ba jom dañoo rooto rooto root gis nañ ñun dañoo root ba suñu bopp yu xuus dañoo root ba. am ak yow sa kër xam nga ay xooxu mango. Mm-hmm. teg xooxu mango teg teg tek birik. Mm-hmm. tek siwo bu yàqu. tek ay dënk kan tek yow root nga. root naa ba tas dañoo moom lañ daan teg la wax. an quatre heures du matin lañ na yeewu kenn du nootu quatre heures du matin dañ daan fekk ci robinet yi ñuy rang benn robinet fi nekkoon ñu koy njëkkante beneen robinet nekkaat ñu robinet jàkka ji ñu koy njëkkante fajar fi lañ daan fekk ñu root nañoo la ba dee ñu luñ daj suñu doom yi ko yaay booy lan moo tax ñu luñ daj suñu doom yi daj ñu ko moo soq soq ba suñu loxo yu fut man nag suñu kër jour cere lañ daan kaw tukaa soq ba suñu loxo yu cere moom lañ daan reere moom lañ daan ndékkee chaque jour ñu soq man cere rek laay def nga ni. mooñ araw lépp laa mën dara taw. macha allah. ah yow de wax dëgg yàlla euh, cere ngurbaan. lépp ak ak li nga xamante ne mooy cere baase ñebe ak yooyu. Ah, waaye li mu bàyyi xam ko de. yaay booy yaay mu mel ni que tey. Euh, waaw ñun ñii ay célibataire la waaye togg rek la ñuy def. waaw ñu taajal ñebe xooluñu jéeg de jéeg ñu sëy si tool xooluñu ko célibataire yi dayuñu bay def. damay cere damay fonde damay laax ba mu neex. <laughs> man maa leen wax lii de. ay cere yow boo fonde woon mu fay si yow. tey c' est ma. xool ñu xam ndax fonde nga wala fonde wala. fonde woon dara waaw dara nag. dangay fonde dangay cere dangay laaj. dëgg yow buñ la photo <laughs> eh, wala ñu passé la est-ce a di nga ko def. bañ a ka def li ma ti wax nii moom laay dëggal. bañ a ka def imaginer ngay rang ay xoxu mango. imaginer ngay rang ay xoxu mango di soq ah di wal ah dem ba am sa doom mu takk jabar nga yaakaar ne sa sa nakar jeex na mu ñëw di la këll di la këll këllee xale est-ce que loolu dina neex. li mu wax ni man damay fóot damay raxas damay bale damay toog. waaw est-ce que yow soo sëyee soo sëyoon tey ah. est-ce que yow soo sëyoon tey waaw. waaw xaddi moom fi mu toll nii su sëyoon tey ba am doom bu góor mu dem takk jabar. ne ko maman sama doom bi dama koy yóbbu si appartement. imagine nga war a commencer waat à gérer te nga muñoon muñ muñ est-ce que xaddi loolu dëgg la dina neex. lu neex de. xaw ko mën a waxee. ah waxal la. daf may neex la. kaay ma wax la damaa bëgg na ngeen góorgóorlu sëy. ñoom ñi nga xam ne dañoo sëy ba dee ak suñu yaay lay doom yi toog suñu wet. ñoom dañoo sëy ba ñeer. ak suñu yaay dama ngoom nga xam ne dañoo sëy ba jeex. di a sëy maama jaxate xool ko fee. day defante ba léegi maama laa lay tegal la du ay caaxaan. du ay caaxaan maa xam ne bu ñu mënee fóot moom la bu ñu mënee root moom la sama xel dem na si am jekk euh, mbaxane nee na euh, femme yi sëy fay sëyu Facebook la nuy sëy waaw ko wax de de ñoom ñii consort bi waaw yooyu la ñuy ay whatsapp ay fay yàgg <laughs> <laughs> waaw waaw Facebook waaw yow kay toj de. waaw sëy leen ci whatsapp bi whatsapp bi tax sëy bi rek. whatsapp bi wax ci whatsapp nga lu xew ak jamonoom rek. waaw ñun ay xaaral ñu doxul dara. waaw dox leen rek. ba ngeen sëy di taal gis nga fii nii lu jot rek yow ku nekk sa wàll bu wéyee da ngay bàyyi lépp. ma doxalee ñun ci mode la ñuy dox dëgg neexu ñun ay xale rek dëgg neexu ñun gérer rek la ñuy def ñun suñu kër rek koy gérer ba mu neex ay xale rek ay waaye bu ñu sëy fu ñu sëy fekk dañuy sëy ba dugg bu avocat ku ñu yóbbu ci kër ñu toog sëy gérer ba mu neex dañoo jure fekk suñu yaay yi di sëy gérer ba mu neex ku ci mel ni maa am tax daa toog ba muy metti fa la ko dërëm fekk ba tey ba cent franc fekk ko fa ba ay million fekk waaw waaw ndax daa toog muñ ko fa mais jàmm joo jàmm nag buñ ko mënee am ci suñu kër famille ñu toog fa gérer kër gi mais buñ ko fa mënta am tamit ñu génn ut suñu appartement ndax ñun dara ñor ñu lu suñu jëkkër ah man dama jékki sax dama jékki rek euh, xool euh, jeetaay bi ni ñu ko bere. mu mel ni dañu jël xale yu ndaw yi teg leen fii. man nga toogee rek nga maa fekkee moom bakkan lay laaj. yaayam dafa jug 3 heures du matin di rooti. fii ci centre bi dafa jaawale dafa ne ay seen kër yooyu itam. waaw waaw di rooti. waaw ne mu romb ci génn kër ku jël sées teg ci ko ardoise toog. Ah. di dox ci xam nga ardoise kenn mu teg sées ci di dox waaye dafa ko muy dara. ba mu rootee ba wàcc na ba ñëw toog dañu waaw man li ma gis bi jaaxal waaw xay diw moo yëgoon ci kaw adduwaat sam toog fa di toog ñu ko adduwaat xam nañ kenn mën caa teg si di toog dangaa joomi te yëgaloo sa yaram yaay ki def dëgg la ak sëñ Tuuba sama émotion émotion ci loolu yéeme na mais mère yooyu ñoo sëy nag. ñi dañuy sëyantuwaan sëyuñu. ay xale yi dañuy sëy ni dañuy sëyantu mais sëyuñu sunu yaay yi ñoo sëyoon. waaw sunu yaay yi ñoo sëyoon ñun tamit di jàppale sunu yaay yi. waaw di sëyle sunu yaay yi sunu yaay yi sëy ñu. leen di jàppale. waaw di leen root la di leen soppale telepon bi rek connecté rek connecté ha? ak message rek on sonn ñun yow sax ba xaale guddi dégg ñu connecté rek ah on sonn ñun donc boo yeewoo di bidal waru ñaar Kore dara mo ne taxa yàgg. Kore dara mo ne taxa yàgg ñoom. Ñun instant bi. Ak wéy na. Ku nekk sa temps rek. Jamono rek sa jamono jamono kat euh, mu mu ngi toll si ay ay ay jamonoy Viber ah ay jamonoy WhatsApp ak ay Facebook ak yooyu euh, jinne yi nag ñoom euh, ñooy sax mën nañu sax connecté wu Facebook di wax ak soxna yi on sait jamais soxna yi yéen bu jinne ju am xaalis ñëwoon am koppar yu bëri nan ko waxee lang xama lan ah langal ah def jaana nooy def moom ah bëgg nañ lu baax mais bëgguñu ci wax fa dëgg yàlla bëgg nañ lu baax trop bëgg nañ jëkkër bu am xaalis bëgg nañ jëkkër bu am situation bu baax mais yàlla nañu yàlla musal ci jinne jinne moom na dem ca moromu jinne rek ñun ñu bàyyi ñu nit ñi. sama yaay dafa mel ni am na lu muy wax waaw. waaw dama maa maanaam comme yooyu xale yi jëfandikoo am na koo xam ne fii ci ci Grand Pikine gii. Hmm. ah dañ ko ci na waji ci lay doon doxanante ak mom yeen dat kaddu yi yeen lañuy jëf ni moy seen euh, portable yi rek yi ñuy collecté ci la gisé waji yaangi dégg do bu gor la am ngi ni kenn mënu mënu fexé ba gis waji ci am na fi ci digg dëkk xamuñu ndax jinné la wala kenn xamul am am na doom bu gor xalé bi gis ngeen ko waxal expliqué ñu. jàkkaarloo nag moom. xale la mel. xale bi dafa xees waaw xees moom est euh, euh, xam nga Ousmane eh, dund bi ñuy dund. ci kaw suuf dafa am ak yeneen xeeti mbindeef yu ko bokkal. yoo xam ne yàlla may na leen ñoom ñu mën noo gis te ñun mënuñu leen a gis muy jinne yi te boo xoolee ba xool jigéen ñi leen gën a nennu li tax ñu nennu leen nag lan war a taxaw seetlu xool lan la jinne moo ëpp doole nit jinne ju góor moo ëpp doole fuuf góor bu solo jigéen ba nekk ak moom góor dootul amati pexe pour jot ci moom kon faw jigéen ñi wax seen xel ci yooyu yëpp indiwaat seen xel bi sol sol bu jot ngir mën a mu jinne yi Euh, tey nag ñu indi leen woon fi ay émotion yu bëree bëri euh, ñu fax waxtu wi nag euh, dab nañu ñu fas ne ko ndax képp fii ndax kat lu neex du doy comme ni nga xamante ne ni noonu laa leen ko dëkkee di wax bokk wërsëg géej la tey cappaat nañu puso bi kut boobu wadd moom la ñu waxtaanee waaye li des moo ëpp fuuf li nga xamante ne ni waxtaane nañu ko tey ndax li ñu waxtaane tey pousser lañu jël rek capp ko ci geej gi gout bobu nga xamantene ni mo tok mom lañu waxtane li dess ëpp fuuf kon nak euh, mbokk yi ak xarit ci euh dinañu wéet lool ci fan bi néew yi nga xamantene ni di ngeen ñu tok te du ngeen ñu euh, gisaat waye nak du yag dara ñu dajewaat ci benen numéro ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh du may sëy nit moom si kër ëpp paye nagal na daw ku ñene